بسم الله الرحمن الرحيم جرم ميلو خاج بي كي وقتاني صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نمي فرق أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نك لندخ من تتلم من نلقى روتي بكار lu mbalaan man ci nëbb awra mën na lu ko raw ci nëbb ayib cheikhuna xaadimu rasul sallallahu alayhi wa nee na وهي أيضا تستر العيوب ويغفر الله بها الذنوب موم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الخادم نينا داي ستر العيب جامبي جامبي كوي دف دكوي نبل أي سكم di ko suturaal te sunu borom subhanahu wa taala da koy jéggal ay bàkkaaram qaala sallallahu alayhi wa sallam li abi kaahilin alsaxaabiyi radiyallahu anhu ya aba kaahil من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا لي وشوقا إلي كان حقا على الله ان يغفر له ذنوبه تلك الليله وذلك اليوم صلى الله عليه وسلم دفوخ ابو كاهل نكو كجولي تي من نيتيون تي بتيك بي نيتيون تي غير صوبما اك ام تيوفيل تي من حق لا تي سن سبحانه وتعالى تي مو بكارمي كو بكارامي غوغا بتيك غودي صلى الله عليه وسلم نينا الصلاة علي أمحق للخطايا من الماء للنار والسلام علي أفضل من عتق الرقاب وحبي أفضل من مهج الأنفس أو قال من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل ومن صلى علي واحدة حبا لي وشوقا إلي أمر الله حافظيه أن لا يكتب عليه ذنبا ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم دفوخني من دخمل كيو سورا نكو رول جل كمن مل كي أي بكار غوريل أي جام لمي أم أم صلو سلم كمن موكو جن. روح نمو أم صلو كمت ولا كيلو يدندو wala dereeti xol ni mu ame solo ci nit walla ci luy dund sopp ma moo ko gën wala mu wax ne góor-góoru jaasi ci yoonu yàlla li muy am am solo sopp ma moo ko gën mu daldi ci teg ne ku julli ci man benn yoon ngiruk sopp ma ak ak cofeel goo am ci man sunu boroom subhaanahu wa dina digal ñaari malaaka yi nekk ci say mbagg muy raqib ak atiit ñu bañ laa bindal bàkkaar ñetti fan كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبدين متحابين يستقبل احدهما صاحبه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم الا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تاخر المصطفى صلى الله عليه وسلم nee na ñaari jaami yàlla yu soppante te yàlla tax bu ñu jàkkaarloo di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu teqalikoo mukk te sun borom jéggalu leen seeni bàkkaar yu njëkk ak yu mujj كان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستعذر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب sallallahu alayhi wa nee na ku julli ci man ci biirub téere fii sama tur ma nga ca biir téere ba malaaka yi dañ lay sàkkul njëggal ca sunu borom subhaanahu wa taala Ubay ibnu Kaab nee na bu ñu xaajee guddi gi ñeenti xaaj bu benn bi demee sallallahu alayhi jóg naan jóg tudd yàlla tudd leen yàlla dee ya ngi ñëw de bés penc ngi taxaw de ubayum nu kaab bi nekkoo ko sang bi man de damay def salaatu ala nabi sallallahu lu bari lu tol nan laa la ci sédd sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu la neex mu ne ko ma xaaj ko ñeenti xaaj jox la benn bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu neex waaye boo ko dollee mu gën mu ne ko ma xaaj ko ñaari xaaj jox la benn bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu lay neex waaye boo ko dollee mu gën mu ne ko ma xaaj ko ñetti xaaj jox la ñaari te jël benn sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu lay neex waaye boo ko dollee mu gën mu ne ko kon sang bi jël naa lépp jox la def ko hadiya sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon def na la fegal njàqare yi àddina ak àllaaxira def na la jéggal say bàkkaar abdurrahman ibnul jawzi wax na ci téere bu ñuy wax bustaanul waawayn wa riyaadu saamiin ne bu saadi taxaw ànd ak am mbugalam ak i njàqareem ba gàncax dootul des ci kaw suuf mel ne dara mësu fee sax te loolu am mbugal rekk a ko waral segam loolu mbugal rekk a ko waral kon yërmaande yàlla ju yaatu ji lool bu sotti ko ci kaw jaam bi dafay jële bakaram yépp ba melni musta am bakar te loolu bu la ko yàlla sotté benn yoon rek la kon nu mu war a demee bu la ko sotté fukki yoon ngir li sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon ñu dégg ci ne benn salaatu ala nabi sallallahu taala wa sallam boo def dina waral yàlla xëpp la yërmandeem fukki yoon te benn yoon bi rekk doy sëkk ci far bàkkaar yi jaam ñépp yàlla bind kon salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ciy bàkkaar moo raw ndox mu sedd ci sawara ni ko sayidna abu bakrin al siddiq radiallahu anhu waxe الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار سيدنا أبو بكر الصديق موكو وخ كن صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نمي فر أي بكر لين لين أندل لن التي فرندي مجلكو تي النبي صلى الله عليه وسلم مجلكو تي أي صحابة مجلكو تي أي أولياء أجمباخ